asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokku téléspectateur Equivox yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ak Vox Arena di leen ñaanal jàmm tey nag bu ngeen gisee rii bi ñu nekk ñu ngi waat mbuur géej xam nga mbuur moom ak làmb histoire bi du jeex ki ñu fendi nag mooy Bamba Mbuub borom. li nga xam ne nii moom mooy fiis fiis nag bu ñu waxee benn kuréel la boo xam ne pour defal mbëri ay formation la ngir que nag comme la permax suñ papa ja daan wax rek lamb tegandaay la maanaam kon mbër day am koy booleel waa FILS nag dañuy former mbër yi yaa ngi dégg ñoom ay métier gisoon nañ fi temps yële passé ñu joxoon leen seen ay diplôme ñoom Tidiane Faye ñoom Yaawu Diall ah ak ay mbër yu baree baree ñoom amaa ndaw loolu nag ci la Bamba Mbuub nekk tey di continuer moo tax ñu ngi fi nga xam ne mooy hôtel Escale ci Mbour Géej ah dañuy dugg ci biir hôtel bi suñu duggee léegi nag dinañ leen wan li fiy xew ngeen suivre ko du mën a ñàkk parce que nag ak Babacar ànd ak El Hadj Séri Mama ah, du mën a ñàkk ak Xule maa ngi koy ñaanal moom itam le futur mari rek faw mu am soxna parce que góor moom balaa baax rek faw mu yor soxna kon dañuy dugg fii rek waaw hôtel baa ngi nii paka la defe naa ne champion d'Afrique ñu bëri sax bi muy door dañ ne yi kii ni bu fekkee am na ko koy remplacer kii lay doon mais par la suite nag xamuñu lu mujjee xew xaw ma dafa mujjee bàyyi parce que dëbb naax moom ku ko xam ci Sénégal xam nga ko pakal la saa bu la masaana def nii hélas bu la naaxee bu la tegee dën bi bu day ak yow foo maanaam fa ko neex la lay yóbbu loolu moom seede nan ko ñoo ko fekke ndax père Max maa fekke ba kat lay laaj mbër maa lay bëgg. waaw Babacar maa ngi lay fay. dañ la ci gis nga wàccaat ci lutte avec lutte simple bi indi ci benn force bu doy waar di finaalu di daan ñoo xam ne yaa leen mag ci at wala ba nga mag leen ci bëre lan moo indiwaat paxale at dikk boobu. waaw boo gisee boo gisee mu ñëwaat aussi tamit ay mbër lañu te làmb lañu yaakaar bay xool tamit instant yéegu doon nañ def bu dee ba yéegu benn soin bi ñu dem ba si biir affaire bi xaw a nakari komba yi jafe moo tax ñu wàccaat si suuf bu baax a baax liggéeyaat waaw komba boobu combat bu neex la bu champion la Balla Gaye champion la donc Bombardier daan na ko ah Bombardier yoon bu mu awoon ba daan ko na awaat yoon boobu rek pour mun a ñëwaat pour daanaat Balla Gaye hmm. waaw jàpp nga ne Bombardier mën naa daan Balla waaw bu caaxaanul. Hmm. pour man bu caaxaanul laa wax de. Hmm. waaw boobu di amul mun mënta daan si làmb. ba ci Balla Gaye 2000. ah daan na kay. wax dëgg dañuy revanche. waaw revanche. parce que boobu dama dégg ci supporter yi Balla ñu naan Balla est-ce que na pare woon na affaire yooyu boo ma ji nag nee na yoon ku wér pelek la soxla comme nee na kon nee lay lay ba. waaw comme ko wërul woon bi paa dañ koy ñaanal yàlla mu wër dara bañ koo jot mu ñëw bëri ànd ak sang froid am rek ba xam. Hmm. Mhm. ñaar ku dàq bëri. non Balla Gaye nag dàq koo bëre nag du yomb de waaye Bombardier tamit champion la de. non waxuma dàq bëre kii dama laa laaj benn laaj ku dàq bëre Balla ak Bombardier. non ñoom ñaar ah, ñoo tolloo bëre mbër. non ñoom ñaar ñëpp mën na bëre. ku ëppale bëre bu sew. non Balla Gaye moo ëppale bëre bu sew. moo ko ëppale Bombardier. waaw. ok ci naka. non ñu ñëpp ay mbër lañu. waaw donc Bombardier champion la Bombardier benn mbër jaaxalu ko. waaye bëre bu sew moom. Balla Gaye da koo yor quoi. Hmm. ndax ñëpp ay athlète lañu ay mbër lañu waaye fekkee am fit rek ñëw taxaw pour bëre rek hmm. Bombardier du mu romb Balla fen fenn hmm. waaw. bu ñu sampee jaaga dóor mu daan mën na faa. ah Balla Gaye ñeme naa xeex ak ah, lu mu ciy ragal. déedéet ñemewatu xeex ak Bombardier ay mbokkam duñ ko digal loolu sax. yow xam nga Balla Gaye de. ah xanaa xamante Balla Gaye de Balla Gaye de bu ñu ko doon may cent million du taxaw xeex ak Bombardier ah Paka la non da ko arrangé wul sax. lu la arrangé wu ko daa mënta xeex wala ba ma jël ko ëpp loxo wala da ko ëpp doole wala. non mun na xeex sax waaye dañoo bokkul dañoo bokkul mun na xeex nag car car hmm. allah. mais nga ne boo ko tegaloon téeméeri million. non du xeex ak Bombardier. lii liiru jaan du ko nangu. non du arrangement am sax ah man de ma ko doon conseillé ma ko naan bu xeex ak Bombardier. ñoom ñaar ko ëpp fit. non Bombardier nag ëpp ko fit yombul de. ko ëpp moo fi ci làmb ji ah, yow mos ngaa gis mbëru mbuur bu ragal a ah, mos moo gis de. kon bi yoon gëm nga ne da ngeen di seen victoire. ah bu awee fu awoon. waaw mun na koo daanaat de xaw ma ndax mu bañ a aw fu mu awoon nag. yéen ñëpp pare ngeen koor ngir mu daan ko. waaw a ah, waa Mbour yëpp dofuñu waa Mbour yëpp nañ jóg mobiliser jàppale ko. yow di nga ca bokk. ah bañ a jàpp ndax ndax naa si bokk ko nga képp ku dëkk Mbour kay di nga si jàpp lépp <laughs> ah, Mbour la. am na solo léegi fi may jeexaleeg yow mooy Euh, wàllum gaal yi ak xale yi rawatina mbari mbuur yi ci dugg fa yi looy wax xale yooyu loo leen di jox comme ban message nga leen di yónnee parce que nag gaal ak lu mën a xew maanaam état bi comme niñ koy waxee xulle ñoom ñoo yore nguur gi d'accord waaye ngir yàlla sama moroomu jeunes yi bu ñu état jaral ñu jaay suñuy bakkan déedéet parce que ñëpp dañuy dund te yaakaar naa ne nag bu ñu gëmee góorgóorlu dana am nu mu demee waaye dugg gaal yi daal man Babacar vraiment gënaluma ak bakkan yi ciy dem. ngeen ci jéem a taxaw trop parce am na solo lool. waaw kenn bëggee ko woon noonu c'est que Sénégal moo dem ba mitti te ñooñ dugg si gaal tey ji ku si nekk da am yaay am papa am ay soxna am ay rakk mm-hmm. kër yaakaar la te ñoom géej lañu yaakaar bay xool te géej gi amatul dara benn instant yi moo tax ñuy jël gaal dem pour man du xaru ah, mais mais maman yi moom ku dem moom xaru la moom maman moom bu ñu sañee bu kenn dawat nañu bàyyi maman yi lu ko wutaleeg maman yi la maman yi géej gi dafa yàqu xam nga ñun ay mool lañu yow yaa ngi dem géej ba tey. non man gëj naa dem géej nag waaye ñun xam nañu période boo xam ne nii day ngelaw ak période bu dul ngelaw période bi géej gi sedd na ngelaw na ku si dem moom xaru la. Hmm. ñu dem tey yàgg yàlla na yàlla jàppale ñu des si géej gi tamit ñoo ngi ma sow seen mbokk yi tey naan métti na lool hmm. ndax tey jii dañoo demoon pour tekk rek yàlla dogal loolu kon ñoo ngi leen di ñaanal ñu des si géej gi ñoo ngi leen di ñaanal ñu yegg Espagne tamit ñoo ngi leen di ñaanal ñu fi ñu wàññeekuwaat ñoo ngi leen di ñu dabuwaat ba mun a ñëw pour liggéeyaat pour dabawaat lu ñu weesu woon quoi. am na solo kontaan ci yow. kontaan ci yow Babacar jaajëf.